Euh, mbokk yéen ñu wéy di safo les programmes de Public SN TV ñu ngi leen di gërëm euh, di leen sant bu baax a baax tey ñëw ak yéen seen euh, public reportage wala sax seen reportage jëmale ko ci li nga xam ne rek moo di weeru koor bi di cheikh ramadan bi nga xam ne actuellement si la ñu nekk tey nag dinañu intéressé wu par rapport ak social bi nga xam ne gis nañ ko partout à Dakar ñu gis ay ndaw ñoo xam ne dañuy taaxal li nga xam ne dañuy dal di teg ay café di jënd ay mburu di ko jox ñi nga xam ne rek ñoo di askan bi bu heure dog jotee tey nag ñu fas yéene dal di waxtaan ak ñoom pour xool koppar googee ñu dal di jéré ak lan mo waral social bobé nga xamné rek ñu ngi ci yëngatu ay atangi ni fi ci diwanu Dakar ak lan moko dal di ëmb donc top leen mo waxtaan ak fi nga xamné rek modi ñaari tali lu soliwul dara pour waxtané ak ndaw ñi nga xamné ñu ngi yëngatu ci walum li nga xamné rek modi social mo ànd également ak Doudou di suñu cameraman tour bi Malik Mbodj Malick ñaata at yéen a ngi évoluer ci walum social wa manam li dal yàgg na daal te def na bo xolé def na ay presque 11 ans wala lo xamanteni manam mën na né 12 ans té ay tout temps rek a koy def te ñun ñoo seen mag waaye am na ay jëwrin ñu nekkuñu fi moo tax te it am na ay jëwrin yoo xam te ne ñoo fi nekk ci mel ni Bamba wala Fata ay Fredo ñooñu noonu ay jëwrin lañ waaw ñun nag ay tuutànk lañ rek dañuy màjjal li newul nit moo ñu ko jox dañuy màjjal rek ñoo jox jaamu yàlla yi ñu xewalu parce que loolu jaamu yàlla la boo xamante ne suñ borom moo la ko mën a fay nit mënu la ko fay. depuis ñaata at yéen a ngi évolué ci lii. waaw yàgg na nag yàgg na lool mun naa ne mënu ko compter parce que lii fii lañ ko fekk. te maam na Faty moo tax sax maanaam ñu mën lii lépp mais nekkul loo xamante ni nit a ñu ko defloo wala maanaam kilifa moo ñu ko defloo borom daaru moo nu mooy kattan bi moo nu mooy lépp moo waral lii nii tey. waaw moom laa lay wax nag dañ koy màjjaal ci tali bi la taxaw màjjaal ko xam nga fii lañ koy màjjaalee maanaam laaj gaay yi ñii di joxe juróom dërëm ñaar dërëm lu ñu am falaaw moom la ñuy dajalee bu ñu amee 5 kilos suukar ñu jënd teg cinq kilos café ñu jënd teg ba mu mat. ñu segg jox jaamu yàlla ñu xéwalu parfois ci majaal bi ñu gis leen di jànni wala ngeen wax kàddu ñaaw naka ngeen dundee loolu waa loolu amul solo loolu dafa fekk ne maanaam amaana tarbiyoo ca sikóor yi wala it maam borom daaru amul lu mu def ci yow waaw fii koo fi gis mu taxaw rek sëñ bi am na lu mu la branché waaye àdduna moo amul solo nit da ngay oyofal sa àdduna parce que nit boo koy laaj bu la jànnee xamal ni yow maanaam jaamu yàlla boo xamante ni nga maanaam lu nekk moo war a dal sa kaw nga war a mën a nangu bës sa xol xam ne yaay nangoo jaamu yàlla pour yàlla jox la ëllëg waaw te loolu maam na Faati moo tax waaye du mbindeef. chaque jour ñoo fi faral di xewloo est-ce que yaatoo nag. waaw loolu moom mënuñu ko calculer parce que fii yëpp day fees maanaam fii yëpp tout tànk yi dañuy ñëw maire yi ñëw paa ñëw nga gis ñu romb ñëw laaj kafe borom oto yi laaj kafe waaw maanaam loolu dañ ciy sant ku tedd ki sant ci maam borom daaru sikoor yi waaw loolu la. social bi daal yéen koy jëmbal fii ci ñaari. ñoo ngi koy jëmbal ci ñaari tali bu baax a baax a baax. waaw ñoo ngi koy jëmbal bu baax a baax sax waaw. autorité ñu leen di jàppale ci wàllum suukar beeg ci wàllum kafe beeg yooyu. waaw waaw yenn saa autorité yi dina am ñenn ñu ñëw yëkkati suukar jox la wala nga gis kenn ku ñëw barkeelu benn ñaari junni wala junni pour dooleel la waaw ñoo ngi teew daal. moom lay dégg autorité lan lay doon. waaw li ma leen di dégg daal mooy fii ay tuutànk fi ne buñ ci e jàpp te yàlla tax ñëw jàppale leen maanaam parce que lii dafa doon loo xamante ni dafa jafe ci àdduna. ay tànk yi ndaw ñoo xamante ni matalaguñ sax vingt cinq ans ñëw di jaamu yàlla maanaam jafe na ci jamono ji waaw ñu ñëw dimbali tànk yi te yàlla rek a tax waaw ngir jëmmi Serigne Touba jërëjëf waay. waaw lii de depuis ba ko sëñ bi tàmbalee ba léegi waaw ñu ngi si waaw depuis ba ko maam tàmbalee ba léegi moom ñu ngi si wax dëgg fa yàlla waaw. waaw na ay at yu yàgg kay doon ay at yu yàgg waaw parce que mi ngi tàmbale woon si marmite du cœur quoi. waaw marmite du kër waaw benn émission bu doon daw 2S marmite du cœur la doon doon mais sëñ bi sëñ bi moo si doon teew xam nga bu ñu toggee ay xéwal yóbbul ko ñu ñu ne si prison yi wala ñu ne si hôpital yi xam nga wala ñi nga xamante ne seen doole demewul noonu ñuy def social ñoo di leen koy yóbbul léegi mu dem ba xam nga ñëpp gis ni lii lu rafet la léegi kenn ku nekk sa bopp koñ ngay mujjee teg nga koy mujjee samp ñuy rombu ñi nga xam heure ndogu bi da leen fekk ci tali bi wala ñu nga xam ne fekku leen seen kër ak ñu dëkk ci koñi tamit dañuy ñëw yónnee termus karaaf ñu leen di xelil café wala wala xexaw wala xama yoy non wa wa waaw mi gaay ñi ngi barkelu affaire mom barkelu la rek nit ñi des fois ñi ngi dañuy yor keul mo waral keul be nga gis ne dañuy yor keul di basar waaw léegi bu ñu basaree bu ñu amee njëgu ñett libre wala njëgu ñeent libre ñu dem jënd ñeent libre kafe jënd suukar jënd kaas ñëw indi waa mais ku ñëw moom dinañu dinañu jël mais xaaruñu kenn ñun ñu ngeeg sunu waaw sunu këll sunu doole waaw demeewul waaw si ñun sunu sunu poos la ñuy déparé maanaam du zéro franc mais sunu poos la ñuy déparé dañuy dañuy sas kenn ku nekk ne la ku nekk ñun si ñun sas nañ la temps léegi loolu la ñuy jël ñu boole ko dem am si départ waaw mais teewul tamit ñëpp am na ñuy ñëw ñoo xam ne dinañ si jàpp quoi waaw. Oh, waaw bi maire bi maire bi ñun xaaruñu leen si dara mais monsieur le maire chaque année nag wax dëgg fa yàlla muy Jean Baptiste Diouf chaque année dina fi ñëw romb bu ñëwee fii dinañu gis bu ñu gisee ñu toog dina wàcc moom ñëw barkelu dina am na benn année boo xam ne man la jox 10 000 ak tàndarma ak suukar bu waaw bu yaatu si otoom wax dëgg fa yàlla ak année yu weesu yëpp. dina ñëw barke lu si wax dëgg fa yàlla maa si teg sama bët waaw loolu moom dama koy si non non non non fii amul fii amul lool parce que fii ñun taalibe lañuy dundee ñun dañuy yar si taalibe dañuy ba laaj sax bu ñuy laaj daa am nu ñuy laajee nit am nga noo ñuy dëkkalee xam ak koor gi tamit am nga nooy ñëwee dañuy taalibe lañ lay won xam nga moo tax fii amul yooyu amul amul coow wala ñi amul yooyu ñun taalibe yar ak teggin rañ la ñuy dundee moom la ñu sëñ bi jàngal waaw waaw. message bi mooy ñi kenn ku ne gis nga lii lu ñuy def kenn ku ne xam na lu baax la ñuy def li nga xamante ne social la jàppalante waaw ñun nag xaaruñu si kenn ñun dëggal lañ si am si la ñu nekk ku ñëw nag fekk ñu si dinañ xam ne tamit ah yow gis nga lu baax te yaa ngi def waaw ku ñëw fekk si ñu ñu ànd ak yow waaw mais xaar ñu kenn ñun daal ñu ngi si waaw ku ñëw baax na waaw. waaw dinañu utiliser dinañ jënd ay ay ñaari saaku des fois bu neex ba neex ñu jënd ñetti saaku waaw séddale ko séddale ko ñuy romb waaw dañuy dox séddale ñëpp mburu sexaw kafe xam nga tàndarma loo bëgg daal waaw mi ngi fi dinañ ko waaw incha allah bu fi nekkee dinañ ko dinañ ko dinañ ko joxe incha allah rabi waaw man de ah mbégte rek laa si am man wax dëgg fa yàlla lu ma si lu ma lu ma lu ma lu ma si gën a tuusee mooy si marmite du kër yu njëkk ya yu ñu doon ànd ak sëñ bi daa boo xam te ne Dakar la la woon kër Bekaay Mbaye borom daaru jour boobu moo ñëw moo ko teewee ñu togg togg yu yaatu yóbbu ko campénal waaw ba ñu demee campénal nag ànd ak sëñ bi jour boobu ñun ñoo doon dugal bool si mooy fu famille fu ñu prison wu famille fu ñu leen tej waaw dañoo dugal boole ba si biir ànd ak sëñ bi dugg ba si biir jour woowu laa gis femmes yi nii femmes prisonnier yi jour woowu laa am lu ma tuuse si si si marmite du cœur yi parce que sëñ bi moo tax ñu dugg yegg ba bërëb boobu noonu parce que dañ ko ibbiloon porte yi femmes yëpp toog ñun ñu dugal xéwali toog sëñ bi waxtaan ak ñoom mais jour woowu daal laa am lu ma tuuse si wàllum marmite du cœur bi nii. waaw kaddu bi mooy tënkee mooy ñun daal ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi woo autorité yu nekk si gox bi yëpp. waaw amuñu xaaj seen ñëpp lañ si boole nañu ñëw jàppale seen doom yi waaw onzième jour koor gi tamit dañ fiy def cant gu mag boo xamante ne moo nekk nataal bii nii baas bii nii waaw onzième waaw borom daaru waaw jaaraama borom daaru si koor yi onzième jour koor ñu ngi si woo mbokku taalibe yëpp ñu ñëw si cant gi fii nii Grand Dakar waaw depuis premier jour koor ba onzième jour bi dañ koy takk sax bu ñu ndogoo ba pare dañu takk instrument yi dugg si gox bi des fois sax dañuy génn gox bi pour annoncer cant gi waaw ñu ngi woo mbokku taal bi yëpp ñu ñëw jàppale ñu si waaw jërëjëf kilifa yàlla na yàlla yokk la. loolu yëpp waa loolu yëpp nag loo gisee lu ko waral di màggal chaque jour bisu yàlla yi parce que bisu yàlla yi toll na ci bisu yoo xam ne mag na ku ne te bis bis la te bisu jaamur du bis te yàlla moom bisam bu bu mu sàkku rek mu teg si bisam si àddina rek doomu aadama boo xëyee rek. te wut te wuyoo baatu ashhadu laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammad rasulullaah war ngay sant suñu borom ndax ñun ci cant ci cant rek la ñuy dëkk dañuy cant ba keroog yomal xiyaam ndax da li li ñu ko jaral ndax ki ñu ko jaral ak li ñu ko jaral tamit waaw loolu moom yokkute suñu réew rek parce que xol xol bu tuxu woon dëkk si waat na kër yi nyonyo ñoo ñëw bees nit ñi beesoon tay ñoo ñëw màgget deug gu fi nek dañuy wone ñun suñu deug suñu pouvoiru deuk ni mel xam dañoo xam teranga teranga yemo ñu ko ci gan rek dañ koy yemal bu bu des na sax ci kanam tuuti bu mu doom doom adam yi dañuy togg añ seen biir kër yi genn ko ci benn nit ñi di xewlu lu yëpp ci xol suñu borom la te xol suñu borom mooy doomu aadama waaw lu eggul si lu eggul si si si sunu borom rek du egg si doomu aadama yi waaw ñun nag li ñu mën rek la ñuy defal sunu borom subhanallah wa jalla parce que sunu borom moom saa su rek moo ngi won wan moo ngi ñuy wan moo ngi ñuy moo ngi moo ngi ñuy wan pouvoir am mu ngi ci doomu aadama yi. waaw xam nga ngir Mbaye dafa nekk loo xam ne dafa dafa dafa dafa neex dafa diis dafa oyof da ngay silu sa bëgg sa bopp xam lu baax di ko def waaw boo ñëwee fekk say morom di joxe fukki dërëm wala ñaar fukk wala benn affaire nga am tolluwaay boobu ku ku bon du mayee ku baax rek ngay joxe li ngay génne noonu di ko joxe sa sarax rek parce que koor al zakat yéen dafa war a génn ci doomi aadama li ngay xëy di ko añ ci ay at ñu yàlla may la benn weeru koor am na loo xam ne benn nguur boo xam ne da nga ko war a génn sa poos joxe ko bu ngeen li nga war a joxe loolu sarax la rek zakat la sarax dafa am loolu joxe la rek joxe yoo xam ne dañuy yokk suñu yëf rek yokk suñu toogaay gën a rafetaat suñu bu buñ kenn tilimal buñ kenn yàqal parce que kenn bëggul ku la tilimal waaw looy def rek na leer parce que ngir suba parce que koy defal yàlla ngay defal tel wala kan waaw parfois nag da xam nga di nga dem di cant fenn boo yëpp di bokk yem ak xel yëpp bokk yem am ñoo xam ne dañuy ñëw pour euh, ni ni mel seen melukaan yi ñoom seen melukaan si boppam dañuy ñëw imposé si cant yi te cant amul melukaan cant ñuy woote yàlla la ñu woote yàlla la ñu foofu ci cant amul melukaan cant amul melukaan kii nii la mel ak kee nee la mel déedéet yàlla lañ fa wooyee woote solo lu baax def lu baax xeeñ neex ñëw dugg ci biir ni ñi foo ree waaw yàlla lañ fa woote te yàlla lañ lañ fay waxal waaw amee ah, xam nga li ma la wax sànq moo ci nekk rek doomu aadama yi ku nekk sa xel waaw nee naa la ku soxor du maye parce que baax alul yàlla xaritam xaritam la koy dénk parce que mun nga yere sa lekket tool nii parce que bu déranger lekket nga yere taxaw parce que nit mun na jóge fee nit bu la tollee bu tollee fee ki la a jox tool bu tollee fee buy ñëw xam na am am na yéene jox la dina la jox mais ku la nar a jox da dem yoonam ñun ñun moom tooñ kenn boo ñu joxee baax na boo joxul baax na parce que munoo munoo ñoo jox fii ba ngoon loo xam ne mën nañ ko dundee ba ba yomal xiyaam waaw. waaw parce que man loolu nag euh, xaw ma cee bàyyi xel ne bu bëree ba bëree bëree quoi parce que man je suis un artiste. je joue avec tout le monde quoi je dois jouer avec tout le monde quoi parce que man ñii samay mbokk lañu fii laay naanee kafe su ma naanee naanewul fii café su ma génnee fii ba Massalikul damay dem ba Massalikul mu koy bale ba mu rafet di ko di di xewlu di ci suñu borom bu baax a baax man moom ci ab cant rek laay wër waaw su ma xëy sama gongo bi daw ma fenn ci Baye Fall lay jógee su ma jógee fii naa dem ba ay Colobane Fass fu nekk fu am ba man daal foofu bu Baye Fall nekk rek mun naa fa foo reefa daal waaw man de man de chaque jour rek man en tout cas man sama chaque jour li ne sama xol man Aboubacry Ababacar laa tudd man Aboubacry chaque jour damay cant man moom chaque saa yi ma yeewu moom man moom cant rek laa laqale sama waaw cooñ sax moom bu nga tuma toog su ma génnee léegi toog sama bundu kër aw ma fenn fu ma dem mooy dekk foofu di yuuxu laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu waaw dinaa fa cant moom ba mu neex parce que boo fawul keneen ku ñëwee di foo day lay da lay sonal rek parce que yow àddina bul xeex bul xuloo xeexoo xuloo sàcculoo yàqoo sa bopp c'est que c'est parce que coono day yàq nit coono day tooñ nit wala nga nekk ci àdduna bi nga nekk gor gor gor amoo xaalis amoo dara dafa metti ñun ñun ñun ñun Sénégal yàlla dañoo may may ñu xam-xam may ñu may nañu lépp ci àddina mais dañoo amul alal te ñun suñu xam-xam mooy suñu alal mais dañu suñu xam-xam ñun sans ñu utiliser si pour yokk ci kiraama ak màkkaam parce que suñu borom dafay day maye dimbali ci doomu aadama mais si doo yooyu nag la ñuy yàqee doomu aadama yi parce que c'est pas l'appel que de faire quoi parce que loo mën a def rek na sell si sellaay googu si nga mën a defee lu sell li nga xam ne kat boo la xam ne kat laa ilaha illallah am na kii am na fu mu ko mais boo bëggee sol sa gémmiñ loo xam ne àndul ak laa ilaha illallah foo jëm yàlla yàlla fal jàmm ah, waaw waaw noonu Sénégal moom noonu la Sénégal moom dëkku teraanga la daal ndax lii ñuy def nii yàlla rek a tax ñu koy def ndax da di ci noo ci weer wu màgg wu tedd boo xamante ni dafa nekk weeru bëni soo xamee loo ci def rek suñu borom dala koy fulal ndax suñu borom moom ku ne xam ne moom moom mooy feel boppam koor kon na xale yi bu ñëwee gis social bi muy lu baax lu nekk ci diine ñoom dañ koy utiliser ndax lii dafa yàgg ci xale yi ndax fii am na booy xale yee nga gis ne tey euh, sëñ Ousmane sëñ mooy seen sëriñ fi lay def baas bu rëy la onze lañ koy def fii onzième jour bi fii boo fi ñëwoon la onze bi onzième jour bi di nga xam ne ñoom li ñuy def euh, du asaar daal waaw nag social nag dafa bokk ci euh, famille ndax nit ki moom fekkee eh, da nga bëgg xam liy famille da ngay def social waaye daal ci gàttal rek ñii li ñuy def dafa am solo trop ndax ñu ngi dimbali jaami yàlla ndax saa bu ndogu jotee dañuy jël seen i cafetière topp tali bi di jox nit ñuy ndogu ñoom ñëpp jox leen mburu jox leen tàndarma ndeysaan jox leen i ca aju yëpp ñoom ñëpp ñu ndogu waaw loolu daal moom xam naa xam nañ ko ci xelay moom waaye waaw dëgg la lii bu fekkoon ne chaque année dañuy continuer nii rek booy xool néew ma euh, seytaay duñu ñu waaye du bari ndax weeru koor moom ku ne xam ne seytaan yi dañ koy tënk jatan ko ndax weeru koor ndax ñii ngi jàng alxuraan ñii di jàng xasida ñii def salaatu ala nabi ñii di sàkku ngërëmal weeru koor kon tabarakalaa weeru koor li ci nekk dafa bari ndax tey boo ko doon lim tey fi la ñuy fanaan fi la ñuy yendu kon daal ñu ngi ñaan rek weer wi lépp luñ ci jaamu rek yal nañ ko yàlla nangul barke sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw c'est que loolu moom dafa bokk ci aduna ndax eh, liñ naan ñi gamu amna ñi ras demit amna ñi mën nañu yelwaan ñu leen di jox ngir yàlla ñi dañuy siif ngir bëgg am waaye nag siif taxut a am ndax tey boo fekkee da ngaa siif yëfu jaambur dem ñaari fan ñetti fan nga koy lekk rek mu jeex bakkar ba topp la loolu baaxut waaye li nga yelwaan jox ko ngir yàlla kooku am nga ci yàlla am nga ci yonent bi kon loolu mom da di ñaari version yoo xam ni bi daa aw nii ndax boo siifee bu jàmbur da nga koo siif ci doole waaye bu dee da ngaa yelwaa dañ laa jox te yàlla tax kon boo ko lekkee dina la lew doom soxna si waaw loolu daal moom xam nañ ko ci ñaar yooyu hmm. a ah, xanaa di leen ñaanal yéen nga xamante ni yéen a yor site bi rek ne ci naaj wi di bëgg a xam askan wi li ñuy dund ngeen ciy dox ñu leen di ci santaat bu baax ndax it bu leen neexoon it man ngeen a romb dem feneen te it que duñ leen woone leen ñëw leen ñu wax ak yéen ay comme ñëw ngeen bu dëpp ñu micro it leen wax li nga xamante ni noonu la jeunesse bi dundee ak social bi noonu lay dundee di leen ñaanal site bi gën a dem ca kanam ba site yi liñ ci euh, saaku yi yéen li ci saaku rek yàlla defal leen ko ci barke weeru koor yi nga xam ne la ñu ne